dañ ni nit li gën ci moom di gàllaajam mooy mu sopp ku sopp kilifa waaw mësuma fàttaliku fu ma soppe ku yéenewul Sëriñ Babacar jàmm mësuma ko fàttaliku 다 Man 그거 소프렉 소프나 nene me bi nga sama malah jab dukan Nenle indi mu gis wala mo mujal pasi nyondar. Gisila. Nenek mani ha. Ah, kon nag teggi bi ngi ci nanu gàddu sëtam rek yóbbul ko waaw loolu laa ci xam mu ne bañ la indee maa ngi toog nii sa bàyyi xalifa ñasa ngi toog nii euh, sama am Alaaji Abdu Kan a ngi toog nii mu mel ni dang danga xaw yëngu tuuti waaw ndax bi nga ndaw ndaw danga xawoon yëngu tuuti ma ni ko ak bi ma mag yëpp de mu ni ma soo raamee daw wuti kii wàññee ko raam daw wuti kii wàññee ko raam daw xalifa ñes jékki-jékki ni lii de kenn ko gis moom de dafa xam ñi ko jur ci la defe woon ci man xasida boobu boobu maa ngi raam euh, wax la rekk ni nit mënul fay ku sopp kilifa lool la yàlla dogal waaw mu mel ni kon nag bés bu mel ni bésu mbég la yonent bi moom ko ñuy barkeelu ci leeram di barkeelu ci ay mayam sëkkëre mucc yi ko yàlla joxe yépp ñuy ñaan yàlla boole nu ci yàlla nu ko yàlla defal te itam tabarkal la ñaare mësuma yëg lu ko yitteel te soluma sama dal loolu rekk la xamoon xawma leneen mas na ma wax ci làmmiñam ni ma doom bu ma jaaxlee rek booba dag ma sore